الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi gannaaw bi ñu leen nuyoo te di leen siyaar te di leen ndokkeel ak di leen baal àq te ñaan suñu borom boole mu jéggal nu fas yéene ñëw kon ci waxtaan wi nga xam ne baaxoo nañ koo def ak yéen ci ajjuma bu jot ci waxtu wi suñu waxtaan tey nag ak yéen ñu ngi jëm kon ci ñaari tomb yoo xam ne waxtaane woon nañ ko fi ñëw kon ngir fàttaliwaat ko muy li ñuy wax xadaaul fawaid ku ñu raw ci julli ñu ko war a faye bu ñaare bi ci salaatul marid te mooy ki feebar waxtu julli jot nu mu war a jullee ndax nit mënul waxtu wu ne mu fekke julli gi lépp faaw rek léegi-léegi mu ñëw am lu ko ci raw te loolee ko ci rawit bala ak julli mat faaw mu fay ko ba noppi kon xam niñ koy fayee day nekk lu war tawat tamit noonu la demee yàlla def na kenn mucc te boo tawatee waxtu julli jot bu la tee julli kon moom it ba tey xam na ngay jullee boo tawatee day war ci yow kon ñaari tomb yooyu moom lañ bëgg waxtaane insha allah moo tax kon sëriñ bi di wax ci tasawudu sixaar ni aw jib alal maamun ay yaqdiya ma qad faatuhoo xalfa imaamin xuddima mu ni war na ci képp ku nekk ci gannaaw ilimaan bi julli te nekk mag mu fay la ko ilimaan rawee ci julli ga fay gi nag waxoon nañ ni boo koy def gannaaw sëlmal ilimaan ci nga koy def waaye doo fay ci biir julli ilimaan ndax am na ñoo xam ne seenu ñàkk xam tax na bu ndikkee fekk ilimaan rawe leen benn rakka wala ñaar ñu gaawan ko fay la mu leen rawe daal di ñu fekk si ko ci rakka bi mu nekk te lu yoon santaane mooy soo ñëwee rek fa nga fekk ilimaan foofu ngay kàbbare daal di ànd ak moom soo ko fekkee ci ab sujjóot nga taxaw kàbbar te sujjóot doo ko ànd ak moom soo ko fekkee ci ab toogaay ba tey noonu nga taxaw kàbbar doo ko toog ànd ak moom te nga bàyyi xel ne ràkka boo xam ne fekkewoo ab ruku am ànd kook ilimaan boobu ràkka raw na la kon ci ràkka yi nga war a fay ci la bokk te li la raw ci li la ilimaan rawe boo koy fay ni ko ilimaan defe woon noonu nga koy def bu dee da koo biraloon boo koy fay da nga koy biral bu dee lum yàlla woon boo koy fay nga yàlla ko bépp raka boo xam ne jàngoon na ca faatiha ak aw saar boo koy fay da nga ci jàng faatiha ak aw saar raka bu mu jàngoon faatiha kese nga jàng ca faatiha kese loolu ci misaal bu dee jullit suba nga ñëw fekk ilimaan ci ràkkaab ñaareel ba da ngay kàbbar kàbbarub armal daal di ànd ak moom la ca des bu sëlmalee nag nga jóg fay ràkkaab bu jëkk ba te booy jóg bul wax allahu akbar ñu ne lu tax ñu ne ndax bi ngay toog di xaar fa ilimaan mu sëlmal wax nga allahu akbar te allahu akbar boobu nga wax mooy allahu akbar gi nga waroon a wax gi nga waroon a jógaale boo doon julli yow dong waaye ànd gi nga ànd ak ilimaan toog di xaar mu sëlmal loolu moo tax mënoo koo jógaale kon bu sëlmalee da ngay jóg rek daal di jàng faate ak saar te bëral ko ndax noonu la ko ilimaan defe woon bu doon lu mel ni tisbaar ñu rawale ca ñaari rakka kon foofu bu ilimaan sëlmalee booy jóg di fay waaw da nga wax allahu akbar ndax foofu barabu toogaay la ci yow nga gis ne kon toogoo fi rek ngir xaar sëlmalu ilimaan daa fekk ne boo doon julli yow dong da nga fa toog ndax boo sigee ci ab sujjóot jëm ci taaya taaya boobu faaw nga yotaale ko ak allahu akbar moo tax kon fii booy jóg di fay da nga wax allahu akbar gannaaw boo taxawee jonn gannaaw nag jullit tisbaar la kañ rawale ci ñaari raaka jàppal ne kon ñaari raaka yooyu ilimaan da cee jàngoon faate ak saar ba noppi yalu ko kon yooyu danga jàng faate ak saar te yalu ko bu dee nag day jullit gee ñu rawale ca ñetti raaka kon bu ilimaan sëlmalee booy jóg di fay doo wax allahu akbar da ngay jóge dal ci faatee ja ndax foofu nga toog di xaar sëlmalug ilimaan du barabu toogaay fekkoon da ngay jul yow dong ndax ñetti raaka la nga rawe amul julli dul benn raaka te benn raaka kenn du ca toog waaye ndegam da nga ànd ak ilimaan te moom ak julleem mat na te yow sa julli matagul te mënoo mottali li teeg sëlmalul te taxaw di xaayit mu sëlmal du aw teggin du melokaan wu rafet kon faaw rek sa allah akbar googu nga waroon a jugaale nga toogaale ko ànd koog ilimaan ba mu sëlmal ba noppi comme nag julli gee la te raw nañ la ci ñetti raaka ñetti raaka yooyu boo koy fay ñaaru jëkk ya danga ci jàng faate ak saar te biral ko da ca des nga jàng ca faate a dong te yàlla ko ndax noonu la ko ilimaan defe woon kon yow it faaw noonu nga koy defe gannaaw nag xamal nañ la ni ngay fay benn raaka ci julli suba xamal ni kon moom ni ñuy fay benn raaka ci tisbaar ak tàkkusaan ak gee ñoo yem li nu wutal rek mooy yalu ak béréb ba tey buñ la waxee ni ñuy fay ñaari raaka ci tisbaar danga cee daal di xame ni ñuy fay ñaari raaka ci tàkkusaan ak gee boo gisee tamit nu wax la ni ñuy fay ñetti raaka ci gee te wax ñu la ko ci tisbaar ak tàkkusaan dañoo bokk ab àtte moo tax yalu ya ak béréb ya rek moo leen wutale ba tey nag julli tamit noonu la wante nag ci mu wote ak yeneen julli yi mooy timis booy jóg di fay bu fekkee dañ laa rey benn raaka booy jóg di fay fi ñu wutee mooy fi ngay wax allahu akbar fi nga dul wax allahu akbar ndax bu dee suba wala tisbaar wala tàkkusaan wala geer bu la ca benn raaka rawee wala ñett booy jóg di fay doo wax allahu akbar te bu dee timis nag faaw nga wax allahu akbar bu la ñaari raaka rawee nag ci tisbaar wala gee wala tàkkusaan booy jóg di fay da nga wax allahu akbar te bu dee timis doo ko wax li ko waral nag mooy julli timis dafa tuul moo tax waaye nag ngir xam loolu am na ñaari takk-takk yu ñu ko wutal yoo xam ne te koy gën a gaaw a xame bu njëkk bi mooy da ngay jàpp ne gépp julli bu dul julli timis bu ñu la ci rawee lu tóol mel ni benn raaka wala ñett bu ilimaan sërmalee booy jóg di fay boo wax allahu akbar ngay jóg rek dal ci faatee ja bu dee lañ la ci rawee nag tóolul mel ni ñaari raaka kon bu ilimaan sërmalee booy jóg di fay da nga wax allahu akbar door a tàmbali njàngam ba mu def nag julli timis bu doo julli timis moom day safaanoo ak li ñu wax tamit bu la ci lu tóol rawee da nga wax allahu akbar te bu doon jullee ca des nag doo ko wax bu dee lañ la ci rawee moom ci jullit tamit tóolul kon boo wax allahu akbar boo jóg di fay doo wax allahu akbar te bu doon yi ca des nag am faaw nga wax ñaareelu takk bi nag yaakaar naa ne mooy bi gën a yomb ngir nga xam fi ngay wax allahu akbar ak soo ko dul waxee booy jóg di fay lañ la rawee mooy nga seet rakka bi nga toog ànd ko ilimaan di xaar mu sëlmal ndax boo doon julli yow dong da nga fa toog wala doo fa toog bu fekkee ni boo doon julli yow donc doo fa toog kon bu ilimaan sëlmalee boo jóg di fay doo wax allahu akbar soo gisee nag barabu toogaay la ci yow boo doon julli yow donc kon bu ilimaan sëlmalee boo jóg di fay da nga wax allahu akbar kon loolu mooy ñaari takk yi nga xam ne mën nga cee xamee fi ngay wax allahu akbar booy fay li nga rawee ak fi nga ko dul wax koo xam ne nag jullit ilimaan amoo ca lu mat ab raaka kon yaa ngi mel ni ku ci fekkewul dara te it tuyaaba julli mbooloo ma raw na la maanaam ñi julli ànd ak ilimaan ñoo la ëppale ci yoorub julli ndax lay tax nga bokk julli ga julli mbooloo ma mooy nga am ci ab rakaa bu mat sëkk ànd ko ilimaan te loolu mooy nga fekk rukkoo xagul wala muy rukkoo nga rukkoo ànd ak moom waaye boo fekkee mu siggi kon rakaa woobee raw na la moo tax sooy doog a julli sooy doog a dugg ci jullikaay bi fekk ilimaan ci rakka bu mujj wala nga rag njort ne ci rakka bu mujj la nekk da nga ragal ne boo doxee baag sa fàtte sa imaam danga rukkoo nga siggi te doo àgg te kon julli mbooloo ma da nga raw su boobaa nag yoon may na la fa nga toll nga armal sa kàbbar di dox wuti fàtte sa soo àggee te fekk ilimaan sa duggul jëm ci rukkoo kon baax na bu dee ba nga laataa àgg nag sa fàtte sa ilimaan rukkoo na ba siggi kon fa nga toll fa ngay taxaw àggale ko sa julli ndax su ilimaan xasee sigi ci rukkoo su boobaa da ngay taxaw dootoo sañ a doxat su fekkee nag loolu da nga koo jortoon rakkaab mujj rek waaye nekkul woon rakkaab mujj kon su ilimaan taxawaatee di jàng sañ ngaa àggale sab dox ba keroog ngay àgg ci fàtte ko kon bàyyil xel ni may gi la yoon may ngay dox ci biiru julli bañ ko yaabe julli mbooloo mi raw la moo tax ak bañit ngay dagg fàtte si di julli yow dong fam la ko mayee tamit mooy jamono yi ilimaan taxawee di jàng wala mu rukkoo te fekk si géegul ndax may na la nga dukkat ci biir ab rukkoo ba tey waaye su xasee si nag ci rukkoo ba jëm ci sujjóot dootoo sañ a doxat doxat su boobaa kon da ngay taxaw foofu ba keroog muy taxawaat di jàng nga door a continuer sab dox waaye loolu mel na ni ñàkk bu ko nit ñi ñàkkam nii tax na daana bàyyiwuñ ko xel ba doo gis ku koy def ba tax na ñu bari buñ dikkee ci jàkka ji fekk ilimaan du ko ceeb ko ci baabu ko ci bunt bi la ñuy yem àggale ko seenu julli def seen fàtte bopp te loolu nag rafetul ci jaamu yàlla boo xam ne day wane bennoog ñooñ lislaam kon loolu mooy tomb bu njëkk bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane bu ñaareel bi nag mooy salaatul marid bi te mooy jaam bi nga xam ne waxtu julli da koo fekk ci tawat ndax doomu aadama mook tawat ñoo dëkk te tawat léeg-léegi mën naa woyof ba du la tee mën a julli na nga daan jullee léeg-léeg tamit mën naa gis sa yaram ba doo mën a taxaw diju ba doo mën a taxaw diju rek ngay man am ci tawat yoo xam ne danañu àgg yow ba ci dijju sax doo ko man tëdd rek ngay man te ànd ak loolu lépp nag du tax julli gi wàcc la lu taxit ñu may la nga yeex ko ba wér kon nag dana war ci yow yooyu jamono jamono yi nga nekk ci tawat nga xam kon melokaan yi nga war a jullee kon bul ne damay nit ba wér bu door a fay julli ndax boo ne damay nit ba wér fay ko su boobaa yaa ngi def lu wóoradi xamoo ba xam tawat ji nga nekk danga ci jóg wala déet ñaareel bi xamoo kañ ngay wér talu tawat ji gën a yàgg ci sa yaram bari julli di gën a bari xam seen lim ak takk leen di gën a jafe su fekkee tamit yàlla dafa dogal nga wér xamoo li la ci sa dund dana la may nga fay bari julli wala déet te bu la ko sa dund maye sax ndax jeneen tawet du ñëwaat gannaaw na kon sa lépp ñu ne kumpala ci yow te dañ laa sant kon def li la islaam sant ci boo tawatee nga seet na nga mën a jullee nga jullee ko moo gën di def sa tànn bopp ak di def loo xam ne nii loo jot la lu mel nii nag moo tax sëriñ bi di wax ci téere bi ñu tudde al jawhar nafis ni wa yajibu ala kulli mukallafin an yataallama masaila hada al baab id laysa ahadun maasuman min al marad mu wax ne war na ci képp kuy mat te ànd ak xelam mu xam lu melokaan yi muy jullee bu tawatee ndax tawat yàlla def na kenn mucc mu wax ni walil faridi min al walil faridati min al ahwaali ma tuaddu sabatan wa daaman alima ada an al fard alayha awjaba al fuqaha wa kawnaha tarattuba arbaatun minha ala al ijab arbaatun minha ala al ijabi thalathatu minha ala al istihbabi ila axirin mu wax ne kon ki nga xam ne daa tawat te waxtu julli jot mu bëgg a julli na xam ne am na juróom-ñaari melokaan yu sëriñ bi indi ci aljawhar nafis te borom xam-xam yi wax ko yoo xam ne mën naa seet ba mu ca mën a jullee mu jullee ko ba ci jëkk mooy su fekkee feebar bi su fekkee feebar na wante mën naa taxaw jonn julli kon taxaw jonn julli day war ci moom su boobaa du ne taxaw di jàppandu mbaa mu wéeru ñaareel ba su fekkee mënta taxaw te wéeruwul kon taxaw wéeru mooy war ci moom bu sañ a diju di julli ñetteel ba su fekkee mënta taxaw diju dong la man te mën naa diju julli te bañ a wéeru kon diju julli te bañ a wéeru day war ci moom bu sañ a wéeru su boobaa ñeenteel bi su mënta diju te wéeruwul kon diju wéeru di julli mooy war ci moom bu sañ a tëdd di julli ba ko juróomeel mooy su tawat bi mettee ba tëdd dong la man te tëdd gi mën na ko ci wetu ndeyjoor mën na ko ci wetu càmmoñ mën a jaaxaan ci nit su boobaa kon sopp nañu mu tëdd wetu ndeyjooram julli juróom benneel bi mooy su tëlee wetu ndeyjooram sopp nañu mu jullee wetu càmmoñam di ko juróom ñaareel nag mooy su saraj su tëlee wetu càmmoñam mu jaaxaan julli ñeent yi ñu la njëkk a wax nag ci juróom-ñaari melokaan yi da nga leen war a toftale maanaam boo ci mën a jullee bëggul la neex mbaal la noppal tax nga bàyyi ko fa dem bi jullee ca ba ko féete suuf su boobaa kon sa julli du baax ci misaal su fekkee tawat nga waaye tawat ji ko téewu laa mën a taxaw joonu julli ba noppi nga dem wéeru di julli kon sa julli boobaa du baax naka noonu bu dee taxaw wéeru moom nga man kon boo toogee di julli du baax bu dee man ngaa toog julli bañ a wéeru soo wéeroo kon du baax kon ñeent yi seen ak toftale mënta ñàkk maanaam boo ci man boo saña def ba ko féete suuf ñette ci des nag te mooy jullee wetu ndeyjoor ak jullee wetu càmmoñ ak jaaxaan julli ñoom seen ak toftale nekkul lu war maanaam dañoo sopp rek boo tawatee ba tëdd julli rek moo la defee su boobaa kon nga tëdd sa wetu ndeyjoor boo ko tëlee nga jullee sa wetu càmmoñ soo ko mënul nag nga doo ko jaaxaan jullee sa jullee nga doo ko jaaxaan julli te su boobaa say tànk féete fenk sa bopp féete soowu mu mel ni nag foofu nit dana laaj mën la di jullee ci wéeru di jaaxaan wala muy tëdd wetu ndeyjooram wala wetu càmmoñam su boobaa ci ligi ci am xel rek lay nekk da nga jàng su fekkee mën ngaa wax da nga jàng faatee ji ak saaru di wax allahu akbar waaye lépp da nga koy teewlu seen xel boo waree rek ko nga teewlu ko wax allahu akbar ba li mu raakaay mat kon ci am xel nga koy teewloo ko kon juróom-ñaari melokaan yi ku tawat su waxtu julli jotee kon war naa seet ba mu ca man mu jullee ko kon mu taxal ko beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu